changer la façon de de de pousser un peu les organes de presse. awa euh, euh, ma naan awa sax excuse-moi. benn la <laughs> soxna soxna Khady wax ni que euh, le groupe Walfadjri est une victime du régime du président Macky Sall je crois que euh, c'est juste euh, faire une répétition mais c'est une réalité gis nañ ni que bi fi nguur gi toogee léegi le groupe Walfadjri li mu daj li mu daj. Euh, je suis sûr et certain que buñ ko tegoon beneen groupe actuellement leneen la ñuy wax mais loolu yëpp euh, grâce à Dieu euh, groupe bi mu ngi continuer di taxaw léegi ñu ñëw ci aide à la presse bi soo gisee rek la différence bi amoon daaw par rapport ak ren daaw le montant tournait autour de un milliard trois cent un milliard je crois trois cent un milliard quatre cent ñu ne Walfadjri amoon na ci soixante-dix mille millions. Mm-hmm. tey jii ñu ne la aide bi comme ni nga ko bañee la bañee moo boobu aide à la presse bi ñëw na à hauteur de deux milliards ci deux milliards yooyu ñu ne la groupe Walfadjri euh, nga xam ne tey support am yi mm-hmm. dafa yokk mm-hmm. groupe boobu tey ñu ne la ñëw na ba ci vingt millions. moins que des am na sites yoo xam ne sax ñoo ñu ëppale. waaw wax fa dëgg yàlla mais loolu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire simplement une chose mooy d'abord Euh, le fonds d'aide à la presse bi nga xam ne euh, moom nañuy voter régulièrement pour dimbale presse bi nañ koy séddalee ñi koy séddalee dañ ko jàpp comme un levier politique maanaam tey bu ñuy séddale dañuy xool en fonction pas loi bi li mu wax mhm. mooy entreprise de presse yi groupe de presse yi ainsi de suite déedéet ñoom dañuy xool en fonction des lignes éditoriales li leen arrangé ak ku leen arrangé noonu nañ lay séddal noonu la ñuy séddal donc si on voit cette baisse là aujourd'hui euh, principalement euh, cause bi nga xam ne moom la ministre bi avancé euh, ni que Walfadjri a été sanctionné oui Walfadjri a été sanctionné par lui moom ministre bi illégalement il a suspendu euh, le signal de Walf ça c'est vrai mais li mu fàtte wax mooy que pour que suspension pour que sanction mun a euh, euh, impacter ci aide à la presse il faut que ce soit des sanctions yi nga xam ne édictées par le CORED mais je touche du bois je dis que dans ce groupe Walfadjri je crois pas que 2022 ak 2023 bi ñu nekk mhm. benn yoon CORED def na fi mise en demeure wala sanctionné na fi quelqu'un ou le groupe donc pour dire en résumé ni que yooyu ministre bi soulevé comme grief bii mu ne moom moo tax ñu wàññi euh, lettre bi nga xam ne moom la ñuy jox Walf Fadjri ça ne tient pas la route c'est pas une réalité lii am kay mooy jàpp nañ ne que ñoom li ñu bëgg mooy groupe couché li ñu bëgg mooy jàpp nañu euh, des journalistes couchés ñi nga xam ne dañ leen di xalamal di leen di riitil et consort loolu la bëgg te loolu nag wax fa dëgg yàlla groupe bi ni mu juddoo peut-être que fekkee fekkewuñ ko. ba tey jii wax fa dëgg yàlla ligne bii la mës a am ligne bii la continuer lay continuer di conserver. mais Pape est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour euh, les mass médias les chaînes de télé wala yeneen les patrons de presse ñu ñu xool beneen aspect beneen nature boo xamante ne mun nañ leen ko dimbalee pas seulement l' aspect parce que c' est un peu gênant nga nekk presse ba pare di naan état aide à la presse moom je pense que ça sonne mal à l'oreille aide à la presse. non non en fait est ce que du am conflit d' intérêt après. non non en fait ça peut ça peut ne même pas avoir un conflit d' intérêt parce que c' est ça doit Euh, tel corps de métier état dafay subventionné wala état da koy jàppale c'est tout à fait normal mm-hmm. mais c'est que le problème qu'il y a mooy mënuñu depuis que bañ ko fi tegee ba tey jii surtout su le régime euh, de Wade ba ci mm-hmm. régime u président Macky Sall la seetlu mooy saa yu ñu ne aide à la presse rek mooy que y a des problèmes problèmes yooyu nag mooy justement pour répondre à la question il faut que l'entité des médias mm-hmm. c'est-à-dire acteurs yëpp mun a taxaw am un droit de regard su ce qui se passe parce que le problème qui se pose xadi mooy que ba tey ji aide à la presse ñu ngi koy séddale di ko joxe. mais ba tey kenn mënu wax. Mhm. nii nañ ko séddalee voici la grille voici la fourchette diw lii la am diw lii la am donc tant que loolu leerul rek wax fa dëgg yàlla. d'accord euh, en tout cas bu duggee ci presse bi la ñu gis dérive yu bari ci la ñu gisee ni euh, presse bu nekk am ay tendance ba être la presse bu ñëwee la ñu gis problème yu bari xamuñu aussi sax critères yi ñu koy exactement donc régime régime aussi bu ñëwee ci organe de presse parce que nous aussi les employés ko sentir aussi lu ko neex la ciy ah, def parce que xamoo nuñ koy am aussi c'est que c'est le mot qui me dérange c'est-à-dire si ça s'appelle aide dafa mel ni œuvre de charité la dañ lay may rek yow léegi bu ñu lay may nag amul ci lu leer amul que ni nii lañ koy defee ku am temps d'employé lii lañ lay jox ku am temps de kii lii lañ lay jox c'est pourquoi ça nous prend des de donner. mieux vaut régulariser la publicité xool ba nu ñu koy répartir quand même. ñu egg